jëf rek la yàlla fay yàlla yi lu baax. amiin wasalaam. Euh, euh, euh, oui ou non l'attente du peuple Baye Assane. waaw ah, kay de dañuy conseil des ministres bu mujj ba. Mhm. président bi daf leen daanaka tàgg xawoon tàggu. ci nekk remaniement dana am et cetera. Mhm. waaye remaniement ma mu amee hmm. bi mu amee yàggul de wala. yàggul de premier ministre bi ñu ko amee Baye Assane yàggul. au delà de oui yaa Seydi ah waaw ah, ma bàyyi la d' accord moom na nekk man la nekk waaye li ma jaaxal waaye man daal moom mosu ma gis premier ministre bu ne ci na premier ministre ba ba bëgg a campagne mu tane. ba ba Baye Assane xam nga lu ñuy def. Ah, xam nga léegi Oustaz. Hmm. balaa ñuy dugg ci loolu ci point bi sax nag ñu baal ma. dama bëggoon Oustaz wax ma yëg nga ni France de dafa am ay matt yu leen gane si yu baree baree bare te punaise matt xam nga matt matt yi mattati ni mm-hmm. France matt yi nekk ci ay lal ay ay lii fan ba dëkk France France waaw kon da alko nañu laay ñoo xam ne bëgguñu weñ sax jege leen mu dem bay matt matt yooyu mooy pare leen mm-hmm. matt yooyu dafa na ay sax ci sax lay fépp ñi ngi yéen Afrique lu bon seen kol yu mujj tôt ou tard day tas. fii laa ko xam tôt ou France ci tas la jëm. xam nga ko waral mu ne lakk ay nit alak ay nit bugg say propre intérêt waaye nit lu mu sàcc ba lekk du la jëkk. barke Mouhamed. naxaate kenn mujj rek man man nax sama maam nax sama baay mais munoo ma nax man. léegi nag xam nga ñun Sénégalais dañoo tàmm jënd ci ay conteneur ay kii nii ngir yàlla bàyyi leen. mais mat moo leen ko ñaan. bu leen jënd mat laa bu leen ñu stressé. matt yi bu leen baax na ñun baal nañ leen ba jamono nee. matt matt de musiba la moom. matt matt poson la bu bon sax. matt poson la bu bon comme nag matt gu na ni kon nag rekki leen attention. Mm-hmm. ana Sarkozy. ma ma ma nga ñu war a mettre en examen xaw mm-hmm. moo ki gën a bon ci àdduna bi. ku ci yeewul dootoo yeewu. moo naxante. te ne lu mu def lu mu def nag ba rey lu nit xoolal. yàlla nga ko teg leetar ba ci bàmmeelam di ko xaar. kullu nafsin bi ma kasabat rahin. Hmm. ay waay waay nit ñi xoolal seet leen bàmmeel bàmmeel metti na. te yàgg na ña attention ña faatoon ba tey ba yow ma xam ñëwagut ku ci ne tey bu dee mugal ñu ngi lay mugal. Hmm. yàlla na ñu am ci mugal sa bàmmeel mugal bàmmeel bu du ñàkk du ñàkk te dara jaru ko. kon kon kon ñi faagaagal sénégalais yi tiir leen ay bal ñoom la ñoom lu leen di xaar. <laughs> ñi jël pistolet waa APR yi jël pistolet tiire xale yi ñoom lu leen di xaar. xam nga soleer sojère sojère. sojère waaw bu bàyyi ko jaxanama. waaw ñoo ko ci tuyoo yi. waaw mu fekk ca bàmmeel. waaw li lakk ba yomul xiyam. Hmm. te beneen lakkaat la. dara jël mais ñoom moment bi ñu dund duñu xalaat. loolu de jël ko ah. moment bi ñu dund duñu xalaat loolu de ñi ko def. Hmm. di circuler ñu ngi dox di lekk di naan fekk rey nañu ay nit. nit ñi dañuy nelaw lu bon ah. non nit ñi dañuy nelaw. waaw waaye ku dee yow. dëgg la. Hmm. dañuy nelaw waaye ko dee yow. jërëjëf di ngandee ka bondee jaay taar di dof dof ci kaw nit ñi. xam lu ci xam lu ci yéeme ah. waaw mor baax. te bu mu mu su faa bëgg a dem. allahu bis da dafa fanaan wéet fa lool. weñ yi ne ci kawam. allahu akbar ñu yàkkamte ñu ne doomam kaay mu ne mukk du dugg. dëgg la soxnaam mu ne du dugg de. Mhm. ñu lan jigéen ji gënoon doy waar ca koñ ba mooy ñëw di ko taqal ñi ko. pour yërëm ko sang ko. allahu ana ñoom ñoo jox seen xaalis di ko di leen financé. yëpp daw nañu. ba mel nga naan ko ñëwal gaaw. te jii nga doon xaar kër yi nga amoon yëpp du kër. bii titre foncier mooy titre foncier. bii moo la lew. Mhm. kon yàlla na am moo tax yonent bi naan. ittaqul farasatu bin boo yaani mhm. fa innahu xasabu xarab. Mhm. ragal leen tabaxee alal bon taara mooy ràpp dal sa kaw. mooy da nga koy jaay fajoo ko tu tax nga wér. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala maa ngi jëm ca kaamil waaw ba aljuma incha allah waaw dem ma jiitu naa li fa asan dégg nga. incha allah waaw ba si kanam alxames ak jàmm. du dëgg bi ñu wax nag bañu ñu kenn. Mhm. wax ñu jëmi kenn islam yàlla day yàlla du wax da day juñ ñu rek bàyyi. Mhm. Mhm. mais ñun ñooy décortiquer. yàlla yàlla delluwaat jàmm ci réew mi ba tax ba kenn du gënam ku noonu ni yeewu bala ngaa tëdd xalaatal bala nga tëdd. jéggulul yàlla ci li nga def ci ba bëccëg bi te ndax tëdd yeewu wóorut. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi jërëjëf jërëjëf yaa Seydi ñu ngi doon Baye leen waaw Pa ñu ngi koy nuyu bu baax. ak ca euh, ki ci Canada nu tudd. Euh, Birame Dramé. Birame cey Birame Birame yàlla nga fi yàgg yàlla nga jëf. yàlla nga gudd fan. amiin. yàlla sa jàmm yàgg. yàlla yàlla teg waaw Oustaz yaa sañ kay. tey delloo nga ma alfalaa yaa sañ merci beaucoup merci yaa Seydi yal na ko yàlla sàmm. Euh, léegi nag moom laa doon bëgg a waxal. ngir yàlla oustaz bul jënd xaama jëw ko bul jënd bagage conteneur oustaz bul def li ni mel man de stressé ngeen ma jamono jii waa France. Ah, baax na sërica baal nañ leen ko am problème ñi dañoo war a sax def ay machine fii ci aéroport bi di leen désinfecté wax dëgg yàlla ñoo leen ko baal daal ba jamono neex rek ndax màtt moom baaxul baaxul ci dara. musiba la de. ah musiba naaru laay na est-ce que jotul dugg ba ah, déet bu mu dugg kay. bagage yi na Ndakaaru de. bu mu dugg bu mu dugg. alors ñu ñëw ci dernier dernier point bi. waaw remaniement rek ce ce ce week-end oui ou du peuple lan la ñuy xaar ci remaniement bi nga xam ne annoncé nañ ko ce week-end ndax dina amam sax déet ba pare. je je je pense euh, pas grand-chose à trois mois ou quatre mois de l'élection euh, octobre novembre décembre janvier février bon cinq mois après si on enlève les week mhm. ce sera peut-être trois mois ak lu teg tuuti xëy na mhm. koor boo bëggee dégg-dëgg mhm. ça va être le énième remaniement sous l'ère Macky qui malheureusement pour moi a raté le coche depuis. Mmh. malheureusement. et donc euh, ci wàllu yaakaar ak pas-pas on n'attend pas fort de ce remaniement parce que bu amee c'est ce sera peut-être pour tenir la barque le temps d'arriver à l'échéance finale du mois de février incha allah reste à savoir ndax euh, kii di premier ministre bi Amadou Ba dafa démissionné ou pas. mm savoir. c'est-à-dire que bu fekkee dafaa démissionné dañ naan ah moom de yàggu fi def na fi nangam ak nangam finalement il est parti il est retourné dans l'opposition bu fekkee def cee nekkoon est-ce que ma nga cee woon no certainement donc il il est dans sa logique de continuité mais hors gouvernement li nga xam ne moom la ko sunu yaay bi di wax Aminata Touré pour que mu démissionne mais boo di bëggee dégg-dëgg koor mhm. remaniement ou pas remaniement APR Benno Bokk Yaakaar koor mhm. yàlla na yàlla defal leen jàmm yàlla na yàlla defal jàmm Sénégal defal ñu ko ñun ñëpp suñu réew avancé élection yi am ci jàmm ak salaam ki gën gagné élection yi et surtout mu nekk une élection bu sincère inclusive au mais surtout honnête mhm. boo xam dañuy xam ni ko si nekk la mu am loolu la mérité parce que bu dul loolu dina dina dina métti trop donc ce remaniement laa daal man de bokk naa si ñi nga xam ne seen tuum ci dara lu dul ne. amaana mhm. vu que léegi désigné nañu candidat bi dañu war a dem rek ci logique gu xoolil teggi teg dox dem. Mhm. looloo fi nekk et c'est malheureux. Mhm. Euh, bu fekkee ni régime boobu ci loolu la bëgg continuer. par son candidat waaye man damaa am benn fenn <laughs> leen loo xam dama kaa bàyyi xel toujours moo di ne candidat bii officiel di Amadou Ba est-ce que mooy vrai candidat bi est-ce que moo dee vrai candidat bi parce que koor moytu leen de wala nanu moytu bokk wuy ma. mbaa mhm, li ñu yaakaar du loolu. li ngeen vogue du loolu de <laughs> baax yàlla ñu yàlla may fekkee tal. waaye ñoomi neen. waaw ñoomi neen. Ah. <laughs> <laughs> alors internet yi ñu ngi jiiñante matt yi nag de nga. diggante Italie Allemagne France. Ah. ñu ngi koy jiiñoon kii nee na ma. Euh, toog nee na euh, Pascal Prod benn journaliste français la nee na immigré yi ñoo ko fa yóbbu yéen yéen a matt. mu ne. nee na immigré yi ñoo ko fa yóbbu. waa dafa raciste moom Pascal dafa raciste moo tax yéen dina ko yekk lu mel ni xame dafa raciste yéen yéen a sonal sax immigré yi nag nañ waxante dëgg. Pascal yéen yéen a bon yéen yéen yow eh yow yow yow yow yow Pascal yow nañ waxtaan ak yow kat du dëgg. ñi nga koy ji ñu ngi ñu ñoom ñu ngi feebar parce que ñoom